maman la, la honteuse sénégalaise manipulateuse concurrent indikatu dëgg weddikat ki leen ay fenkat yi ngeen doon tàmbale ko ci Youkhou Ndour ak l'observateur am Youkhou Ndour bokkoon naa nga xam ne xeexoon nañu pour mu ubbi RFM mais il l'a utilisé pour faire tomber Ablaye Wade et lui aussi il est même plus dangereux que Macky Sall ce waaye li ngeen <clears throat> on est en deux mille vingt trois technologie dafa avancé may may nuyu waa waa waa euh, ña nga xam ne ñoo nekkoon fële ci attakaay ba demb waaye ma fàttali leen rek ne que on avait nos éléments ñu ngi woon ci biir salle bi te ndeysaan big sax day enregistré léegi big xam nga big ci biir poos day enregistré donc lépp loo leen wax ci salle d'audience boobu demb génn na ci biti lépp loo leen fa tourné c'était déjà dehors en culotte nue dama leen di woon rek ay firnde ma jox leen quelques éléments boo leen xoolee fii xool leen lii ay enregistrement la dama leen koy déglu loo ngeen dégg technologie la on ne nuit pas de toute qui soit modifié dès sa repart. Repart. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que les déclarations des partis non. n'ont pas été modifiées. Mais le procès verbal, il y a une partie des déclarations des candidats qui n'ont pas été euh, mises dans le procès verbal aussi. Parce que même, même les photos qu'on a mises dans le procès verbal, je peux retourner s'il vous plaît. Oui, c'est ça, en fait. Vous avez bien parlé. Je suis bon. voilà. moom heure boobu noonu mois de problème si elle était mu woon ay permanence là-bas toute la nuit bu ñëw ñu béy béy foofu pourquoi en fait moom si guddi gi mu dem rek c'est parce que c'est comme pour moi c'est comme s'il y a quelque chose qui se préparait en fait. man loolu laa bëgg a. c'est parti de l'autre parti. man je dois mener la quête de manière impatiente. léegi gars yi. duma sori ci lii dama leen di yëgal ne dëgg rek te yàlla tax ah, la nga xam ne moom lañu sosal sosal docteur seeni gay ba mu am ci sa ay taskatu xibaar sénégalais ci suba ba léegi ñu koy jël di daw ak moom di gën a sos dama leen bëgg a yëgal ne lépp ay sos la docteur Alfousseyni Gaye masul wax ñoom lii nga xam ne moom la ñu wax ne la wax ndax dos docteur Alfousseyni Gaye wax na leen depuis mille neuf cent asak ajak-jak ne masu leen wax ne dafa def prélèvement déedéet docteur Alfousseyni Gaye masu leen wax ne dafa def prélèvement waxu leen ko de xam nga yéen ay doomu aadama ngeen yoo xam ne gëmu leen yàlla te xamu leen puissance su yàlla donc moo tax yéen toujours vous êtes dans les farces waaye ku dem ba caaxaan ba nit faatu ci war ngaa mën a sérieux xam ngeen docteur Alfousseyni Gaye li mu def ni mu tudd équivionnage équivionnage maanaam junju jël li ñuy ne coton tige bu gudd nga junj ko ci dara nga fomp ko ci loolu moo tudd équiviolage ça n'a rien à voir ak yéen li ngeen wax xam nga prélèvement wax nañ leen ko avant ñëwaat nañ leen encore dalaat leen différence bi prélèvement mooy nga tibb dara nga jël kudd bu ndaw nga gis li ñuy tibb nga mën a tibb loolu mooy prélèvement prélevé équivionnage nee nañu leen comme ni ñuy defee xam nga ma jox leen exemple bu gaaw bu ñuy def testu coronavirus dañuy jël lu mel ni coton-tige dugal ko sa bakkan yëngal-yëngal am ko bu ñuy def lu mel ni ADN dañuy yëkkati sa làmmiñ jël lu ni coton tige yëngal-yëngal voilà loolu mooy équiviolage li nga xam ne nag moom mooy prélèvement tey bu ñu soxla woon par exemple sa baqata ñu tibb ko nga am ay ñendaxit yu bari ñu tibb ko loolu mooy prélèvement donc équiviolage mooy nga jël dara junj ko ci dara frottis nga jël nga frotter frotter frotter mu génn équivionnage donc nañu bàyyi jéem a lëre sénégalais yi nee nañu leen on est en deux mille vingt fen mën naa jël ab ascenseur am ne bagar bagar bagar bagar di dem balaa muy yegg dana fek dëgg bi jël escalier jiitu ko ci kaw ndax en réalité dëgg rek mooy mujj xam nga nit man nga am dignité nga xam ne dangay fen nga mën a nangu ne ah juum naa de lii ma wax nii du dëgg méngoowul ak dëgg loolu c'est normal loolu du ci du gàcce ci ngóore la bokk xam ngeen c'est pas pour mi ñu sàkk ñu wàcceel leen ay aaya ba ñu ne leen fen dafay yëngal aras noonu la yàlla jéppee fen parce que fen man naa rey lu nit xam nga yan bu ñu toppoon ci seen fen yi rek ni kon tey président Ousmane Sonko mi ngi ci kaso bi di servir vingt ans de prison te pourtant ay fen la yan bu ñu toppoon seen fen yi di leen déglu sénégalais yi topp leen ni kon tey la président Ousmane Sonko serait en prison et en train de servir vingt ans de prison parce qu'ils ont criminalisé le viol et toute personne qu'ils ont condamnée sur viol mën naa def ñaar fukki ati kaso démb dégg ngeen procureur bi ci réquisitoire am mu ne ñaar fukk at lay laaj ñu tëj ko Ousmane Sonko dont dix ans ferme maanaam ñu tëj ko fukki at yeneen fukki at yi mu def ko comme ci biti maanaam mais ba léegi kaso la ñoom yaakaar nañ ne ay yambar lañ ko sekkal ñaar fukki at déglu leen ma yi sénégalais yi laay waxal il faut ngeen déglu procureur bi ñaar fukki at la laaj ñu tej président Ousmane Sonko ñaar fukki at la procureur bi laaj pour ñu tëj ko Ousmane Sonko ñaar fukki at man du ma seetaan TFM kii bind nii xaw ma lan si naan ma El Malick mi ngi TFM El Malick warutoon dem TFM sama waay la nag ku baax la ku yaru waaye bàyyi leen dem TFM parce que TFM l'observateur mënul bind tey ñaawtee fi yëpp après ñu nangul TFM del ko interview da leen di may visibilité man du ma seetaan TFM et désabonnez-vous de la TFM parce que bu ñu jëlee El Malick tey mu dem may leen visibilité bu subaa ñu teg fa beneen samba boy buy taal réew mi man du ma seetaan TFM te désabonnez-vous de la TFM arrêté leen TFM ay bandi lañu désabonnez-vous yàgg naa leen koo wax farampàccek euh, maanaam rajaxeek euh, euh, voilà bi ñuy def vendredi désabonnez-vous de la TFM télé fenal Macky nekku fi pour yéen bu ñu leen jële rek c'est pour vous piéger et vous faire emprisonner Pape Ngagne c'est un mercenaire comme les autres journalistes de la TFM c'est tous des mercenaires ndax xam nga barki dem Ndiaye Pape Ngagne moo fi jël Madiambal Diagne mu si mu yàq Ousmane Sonko lu ko neex ay sos ay fen ay tappale te pourtant Pape Ngagne xam na ne kër Madiambal Diagne la ñu reyee ñaari soldats yooyu Fulbert Sambou ak Didier Badji désabonnez-vous de la TFM voilà désabonnez-vous kenn mu mu dem seetaan TFM bu ñu bëggee seetaan El ñun xam nañu nu ñuy def ba dégg El Malick ndax suñu xarit la muy nit ku baax un très bien bon communicant voilà léegi gars yi ma ñëw waxaat leen encore une fois rek dama leen di ñëw ne Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye yàlla na fi yàgg lool te wér te mu dund yàlla aaral ko njabootam yàlla sàmm ko sàmmal ko njabootam yàlla bàyyi ko ak jëkkëram ju baax ji Ibrahima ñuy ay nit yu baax ay nit yu jub ay nit yu diiñ mbaam nag doomam rek la mën a jur waxoon naa leen fii ne leen El Hadj Ousseynou Diouf non non non non non El bandi bii El Hadj xawma lan Ousseynou la wala El Hadj rek tout simplement waxoon naa leen ne ci kër giñ ma mayee soxna mas nañ ko faa may soxna donc du xame man ak El du kamante bu ndaw la ñu xamante dañu kamante mel ni tuxkatu poon ak laxaskatu poon comme ni ko président Ousmane Sonko di waxee El juuf Diouf leen waa kawlax yaayam ca marché Kaolack bala ne woon falaa mën yem am na foo xam ne nag duma fa yegg par respect à la famille waaye El Hadj judduwul sax ci buumu sëy El juuf Diouf ci lu baax nee naa leen beneen exemple bi ma leen di jox El Hadj Diouf menn ngeen gis jabar jamu mujjee takk te mu tudd Maam Jaara jabar jooju nee naa jabaru Souleymane Ndeena Njaay la woon cousin am de sang son cousin de sang kooku El Hadj Diouf dafa daan dem këram di doxaan jabar di doxaan jabar ba tasloo jabar sëyam mu takk jabar ji nee naa leen El Hadj Diouf client bu mu am comme avocat benn bi benn jigéenu mauritanienne bu nekk fii la ak ñun Amérique ci affaire Adji Sarr bi aussi dégg ngeen ko ndax gën audio bi génn na dafay génnee banaanaam bu lax boobu teg ko sur la table naan la waa macal ma di ko yëngal muy yuut nee naa dafa am feebaru xel yàgg naa leen ko wax dafa am feebaru jigéen am feebaru xel nee naa leen ca dafay daqante ak mbindaan déglu leen ma mbindaan yi nekk ci biir kër gi dafay daqante ak ñoom ba ñuy faxastalu di daanu mbindaan yi laa leen wax patron bi muy jabaram toujours mbindaan yi dañ koy boole ak El Hadj Diouf El Hadj Diouf du nit yéen Sénégal bu dul yobee dossier buñ la ne El Hadj moom mooy avocat war nga gàddu say dëbës te nga xam ne y'a plus du sérieux nga dem sa yoon Adji Sarr mii daw na kër El Hadj daw na El Hadj ndax bëgg koo tëddee bu ko tëddeewul ba pare Gabriel Kane dégg ngeen fii li mu yekk El Hadj Diouf seen dossier bii kenn moo ci des kooku di Françoise Hélène Gaye Françoise Hélène Gaye nee naa leen ñu nag mooma dëkk Amérique amul dignité amul ngor amul respect amul xam-xam elle a soixante ans presque ëppul sax maanaam dafa dem ba taati peer ndax moom Allemagne lañ ko tàmbalee def lu dul naka si noonu ba sayam tas fa mu daw fi mu ne nii laajte leen dem laaj jëkkër ji Françoise Hélène Gaye mujjee sëyal balaa muy taxu si Amérique laaj leen ko jëkkër ji muy sëyal nii Amérique daf ko bëgg a dafa amul moyen rek ndey ndeysaan ci affaire u Adji bi la ko yàlla dimbale mayaat ko lifeline maanaam mayaat ko lu mu dundee donc ci la préparé boppam ne voilà affaire u Adji bi moom sama bakkan laa ko ci teg waa idi Idrissa Seck njomboor la àndaloon waa idi daan ko fi yaakaar ne mooy seen saagakat ñu kontaan lool ne am nañu Hélène ma wax leen ko ci suuf ma ne leen ndaw sii ngeen jël yaakaar ne àndandoo la ëllëg ak sibir ànduma ak idi nag gaw ma idi man xam naa ne idée dàq dul ci àdduna idi baaxul waaye nee naa leen Françoise Hélène mii ngeen àndal benn waa idi bu nekk fii ci Amérique ñu daggal ko billet yóbbu ko senegaal jëlal ko appartement mu ne day campagnal Idrissa Seck jëlal ko ay garde corps ma ne leen gisagu leen dara war na leen dem na yoonam wax leen ko nee leen bu ne connaissez rien et vous allez voir Françoise Hélène Gaye du nit kooku ak mbaam xuux ak mbaam sëf yëpp dan lañ donc les Sénégalais maintenant Il est temps de nous concentrer sur l'essentiel te ñu xam ne Macky Sall ak ñoñoom c'est pas des personnes qui sont dignes c'est pas des personnes qui respectent les Sénégalais c'est pas des personnes qui feront du bien pour le Sénégal parce que gis nga Sénégalais bëgguma ne dafa bëgg ku ko nax waaye est-ce que bëgg na ku koy wax dëgg sénégalais est que ñun xam nañu li ñu am ak président Ousmane Sonko est-ce que ñun xam nañu li ñu yàlla may ci Ousmane Sonko dafa am proverbe boo xam ne bindal naa leen ko démb mu ne soo ñàkkee sa alal dara du la dal boo feebaree dina am lu la dal tuuti waaye boo ñàkkee sa dignité tu as tout perdu te Sénégal ci tànk yooyu la toll fi mu toll nii Sénégal am na benn minorité boo xam ne ñoom dañoo ñàkk seen dignité parce que man mënumaa comprendre doomu nit ku baax taskatu xibaar ak responsabilité bi nga am ci côté yàlla ñu jox la ab population ngay fen di dajale di duul di dajale te xooluloo ci dara yow lenn rekk nga ci xool mooy alal alal bi nga xam ne bu la lewul sax boo ko lekkee danga ciy jële ay feebar yoo mënut a faj ci loolu ngeen di dox sawaay TFM Youssou Ndour moo ko moom Youssou Ndour xaritu Macky Sall benn bakkan la ñu ngi déggoo bis bu ne ay doomam ay xaritam ay xaritu doomu Youssou Ndour lañu ak ay doomu Macky Sall c'est des amis c'est des personnes qui sont inséparables Seneweb ki ko moom salaam la tudd salaam le DG du Sénéweb am naa numéro Salam je le connais quelqu'un que je connais très fu Macky Sall di dem ci àddina ñoom ñooy ànd fu di dem ci àdduna bi ñoom ñooy ànd il faut Sénégalais yi ñun tamit ñu mën a yeewu lan ngay seetaanee Seneweb ba fay gis lu la naqari Seneweb Macky Sall la fi nekkal patron Seneweb salaam fu Macky di dem ci àdduna bi day am moom billet première classe mu ànd moom moom ak Macky Sall tànk la ak tànk il faut ngeen yeewu salaam la tudd waxuma leen salaam Diallo de waxuma suba Sénégal yëpp dem publier salaam Diallo déedéet salaam la tudd la DG du Seneweb Salam Ndiaye quelque chose c'est lui le DG du Seneweb daf ma intéressé wul rek mais il m'a donné son numéro cent mille fois mais du ay nit yoo xam ne man damay jokkoo ak ñoom mais xam naa leen Lëndëmal TV Dame Dieng moo ko moom Dame Dieng lenn rek ndeysaan benn naqar bu ma am la a marié notre Adja nationale yéen a ngi fàttaliku Adja ndeysaan ah ci laa xool rek ma ne Sénégal amatul valeur Dame Dieng moom moom Lëndëmal TV Dame Dieng booyu Idi la woon bu yàgg après mu wor Idi ànd ak Macky Sall mu tabax ay immeuble ci xaalisu tappale ak fen ak sos léegi ñii sénégalais lan moo tax ngeen leen di seetaan ba ñu leen di def lu leen naqari loolu laa bëgg a xam nit koo xam ne yow xam nga ne amul dignité nit koo xam ne yow xam nga ne jubul nit koo xam nga ne koo xam ne yow xam nga ne baaxul mais looy xaar ba kooku di la def lu la naqari sénégalais yi nañu am xel tu as vu ce dossier on vous avait dit avant que le dossier est waxoon nañu leen ko avant te démb yàlla firndeel na lépp waxoon nañ leen ne amul benn vidéo wala benn audio bu ñu yor wax naa leen ko waxaat leen ko waxaat leen ko barki démb ñii ñu amoon audio ak vidéo bu ñu yor du ñu xaar jugement dañ koy génnee Seneweb lañ koy jaarale jaarale ko TFM di ko génnee chaque jour ñu génnee benn amuñu dara lancé leen défi El Hadj Youth Diouf mën a duul ne leen ko ñun nee nañu bu amee vidéo ak ojo mais ñoom am nañu ay télé am nañu Seneweb am nañu euh, maanaam euh, TFM nañ ko génne waaye <laughs> yor sa téléphone rek ne voilà nee naa juge bi preuve yi ma yor fii preuve preuve yi ma yor fii nee naa juge bi mu tegal ma écran <laughs> ñuy tourner film nee nañu ñuy tourner film noonu mu ne preuve yi ma yor sama téléphone bi fii El Hadj ñun bi ñu yoree preuve ci yow génnee nañ ko génnee nañu preuve boo xam ne yow yaa ne Gabriel kan mu màccal la sa samba àllaar muy banaana buy nelaw nga koy yëngal nee na mënuloo woon même bande tu ne pouvais même bande manul jóg taxaw nga naan màccal ah gis nga ko sama séeréer bi gis nga sama séeréer te mënul jóg taxaw donc ñun amoon nañu preuve yi te génnee nañ ko yow boo amee ay preuve génneel waaye ay sosu neen ay fenu neen nga ngeen jàpp sénégalais yi otage di fonto sénégalais yi di rey sénégalais yi di jàpp doomu sénégalais yi di leen emprisonné Macky Sall di wër ci dëkk bi boo ko waxee mu naan la booy joolaa bi dinaa ko jàpp booy joolaa bi dinaa ko def nii booy joolaa bi dinaa ko def nale mu indi ethnicisme ci biir Sénégal jël ay mbokkam alpulaar mu def leen dans toutes les positions stratégiques cour d'appel cour de cassation justice ay euh, euh, maanaam lépp loo xam ne ci senegal chef commissaire police commissaire euh, gendarmerie commissaire commissaire généralu armée généralu nangam généralu police nga jël ay ay ay xaal pulaar nga teg leen dans toutes les positions stratégiques du Sénégal nga taal bëgg taal Sénégal te doomu alpulaar yu baax yi nekk fi président yu mel ni yow ñoom ñooy créer ay guerre civile ci ay réew waaye guerre civile du am Sénégal Macky Macky dañ lay jàpp te bis buñ la jàppee dinañ lay yëgal ne ki lay atte sa xaal lay doon yow juge bi lay atte yow aal lay doon waaye day doon aal bu jub bu diñ ndax am nañu ay alpulaar yu baax bari nañu ils sont nombreux waaye réew mu takk ci àdduna bi sa moroom yi ñoo ko taal nday xadi njaay nday xadi njaay bu ma mënoon woy woyal la bu ma mënoon tagg taggal la say maam bu ma mënoon bu ma amoon milliard tey ma may la ko bu ma amoon avion ma may la bu ma mënoon wàccee asamaan si may la may la parce que tu es digne yow mënoon ngaa dem jëli ay milliards ci Mamour Diallo defuloo ko nga takk sa sër mu dëgër nga ne dinaa wax dëgg te yàlla rek tax bu may xañ sama lépp dina ma ko xañ waaye du ma ñàkk sama dignité Ndeye Khady Ndiaye Ousmane Sonko sax ci conversation mooy leen di woon ne xamantewul ak Ndeye Khady Ndiaye parce que nee xaw na tee ñàkk doomam dafa juum Ndeye Khady Ndiaye ñàkk na benn doom ci procès Adji Sarr bi parce que ay seex la ëmboon Ndeye Khady Ndiaye ay seex la ëmboon Adji Sarr mii dugalal ko meew xaw ma meew bridel lan xaw ma Ndeye Khady dugal ci frigo bi ñu am luñ ci def empoisonné ko mu naan ko biiram di metti ñu yóbbu ko hôpital ci la Adji Sarr mën a def ñaawteef bi ci ginnaawam benn doom bi dee il faut ngeen fàttaliku les faits salon Ndeye Khady Ndiaye boobu du Ousmane Sonko rek moo fay dem te Ndeye Khady Ndiaye elle est dinaa leen déglu loo ngeen déglu man nee naa leen ñun danoo pare démb tey soog a ñëw salon du ndey du Ousmane Sonko rek moo fa mas dem ci dignitaire ñëpp a fay ñëw déglu leen lii déglu leen. xam naa Dora Gueye kay. fii de seen soo liste bi dinaa la envoyé liste bi nga xool. du benn nit du suite ba tey toll na benn instant boo xam ne tuma ñëwatu fi. jokkalante nañ numéro suite ba nga xam ne képp ku bokk si biir bi rek ci kër gi dimanche yu te xaw ma. Eh, sëñ Amadou sëñ Amadou Sall bu mag bu mag fii de fii ñëw boobu du may xale jigéen ay trois cent mille. yéen a ko déggal seen bopp de déglu leen xam naa door a gay kay. fii de seen son liste bi dinaa la envoyé liste bi nga xool. du benn nit du benn nit seen suite ba te toll na benn instant boo xam ne sama ñëwatu fi. jokkalante nañ numéro suite te nga xam ne képp ku bokk si biir bi rek ñëw ci kër gi dimanche te man xaw ma. Euh, sëñ Amadou sëñ Amadou Sall bu mag bu mag fii daf fi ñëw boobu di may xale jigéen ay trois cent mille. est-ce que dégg ngeen lii pour ngeen xam ne rek ñii seen deal bii dañ ci tegoon seen bakkan ay doomu aadama lañu yoo xam ne amuñu benn dignité waaye waxoon nañu sénégalais yi ne bis. bi gars yi defee seen dossier bii keroog ngeen di xam ne yuuxu dina jib fuñ ko foogewul juge bi Issa Ndiaye ay doom yu ndaw la am xam nañ ko de xam nañ ko bu baax ba xam ay gelam waaye ñun duñu wàcc ci seen bases xam nga juge juge bi nga xam ne moom mooy président tribunal xam nañ ko bu baax Ami Ndaw Ami Ndaw muy accessoire numéro un bul nangu daanu ci lii tu es une femme famille digne ku digne du dugg ci tappale tu es génnal ci lii ba mu set ba nga amee ay tànk démb ba léegi nelaw ma nag waaye génnal ci lii amindaw Ndaw sors de ça lii du sa wareef ay nit yu baax laa xam ci famille boobu ñoom ñëpp ñuy ay patriote bëgg Sénégal lool te di liggéeyal Sénégal ami ndaw génnal ci lii génn ci ba mu set raxas ci say loxo nga wax ci dëgg te yàlla tax nga génn ci dil bii Ndeye Awa Diagne Diallo xam nañu la bu baax xam sa famille génn leen ci lii banditisme bi génn leen ci Issa Ndiaye président tribunal génnal ci lii génn leen ci yi banditisme nit buñ la indilee lu baaxul gis nga demb bi ma laajtee ci ami ndaw ba ñu wax ma jullite bi nekk ci moom ak bi nekk ci moom daf ma marqué marqué boo xam ne ma ne non y' problème est-ce que moom bàyyiwul julli parce que dil naka ngay gisee dil ngeen koy nangu génn leen ci génn leen ci dil yi sortez de ça c'est pas votre place nit boo bokkee fu baax ci ay nit yu baax yuy def lu baax di wax lu baax yu mel nii doo ci dugg doo ci gis sa bopp arrêtez ça sortez parce que gis nga komba bi ça c'est un combat de destin sénégalais yi lay waxal ça c'est un de destin soit nga dagg buumu njaam la ba faw wala soit ñu yeew la buumu njaam ba faw lii combat boobu la que les Sénégalais se préparent docteur Alfousseynou Gaye démb lim fi seede ci justice bi adduna yëpp gis ko ndeysaan muy nit ku jub nit ku dëggu muy nit ku baax du fen ñu bëgg a jël ay kàddu dugal ko ci gémmiñam te bind na tey bind na démenti génnee na li nga xam ne mooy dëgg nee na leen seen tappale yeeg seen sos yi ñun am nañ ko ndax nee nañu leen on avait des yeux et des oreilles dans le tribunal ñun am nañu sax enregistrement yi yéen ci ay caaxaan ngeen nekk waaye ñun danañuy reyante ak yéen parce que yéen xamu leen dëgg xamu leen buur saay na buur dee na xam te incha allahu rabbi dinañ leen ne buur dee le capitaine Touré Seydina Omar Touré capitaine Touré mes salutations monsieur le capitaine tu as honoré ton pays wute nga ak ñoom Masserigne Faye ak ñeneen ak ñeneen avec certains commandants de la BIP e certains commandants de la GIGN ak ñeneen ngeen nekk ci seen tappale yi baga a taal réew mi di associé ak Jérôme Bandiaki nag di def tappale rek ngeen yaakaar na seen tappale yi dina am fu leen yóbbu da ngeen juum rek c'est que vous ne vous n'avez pas compris la maturité de ces nouveaux Sénégalais ce nouveau type de Sénégalais et très mature est très mûr est très préparé loolu ngeen xamul jeunesse bii ñu yor nekkul jeunesse su mille neuf cent ajak-jak déedéet jeunesse su deux mille vingt trois <laughs> gars yi man dama am doom bu am ñaari at sama biir kër te xam naa ne ñu bari ci yéen xam ngeen li may wax gis nga xale boobu boo toogee nga waxtaan ak moom da ngay defee ne mag bu am ñetti téeméeri at ngay waxtaanal monde bi moo évolué ak technologie moo évolué dof juddootul léegi te xale yi ngeen ko sekkal vous n'avez pas compris que ñii xale technologie lañu xale technologie bokkul ak xale tool suñu taawu maam ya y avait seulement que les kajandu et les bayukaay xam nga lépp doole ngeen ko daan defee mais léegi lépp technologie lañ koy defee est-ce que xam ngeen ne léegi am na jiw yoo xam ne boo ko jiyee sa biir tool boo ko jiyee ñax mi sax du sax ci wetu njiw njiw mi donc xam leen ne on est dans un monde évolué jeunesse bi c'est une jeunesse évoluée ça c'est une jeunesse prête à faire face jeunesse bii nekkatul seen jeunesse yooyu non non non ça c'est pas ce genre de jeunes yoo xam ne c'est des défaillants ils avaient refusé de se battre ils ont refusé de servir leur pays Ousmane Sonko li mu déclaré ñëpp xam nañ ko il a un mu ne article premier mu ne les barricades installées par les jeunes à Ziguinchor vont être levées levé nañu barricades yi yëpp Ousmane Sonko la article deux mu ne il a décidé de retourner à Dakar pour ngeen xam Ousmane Sonko nee na dina dellu dakaar article 3 les jeunes et autres les jeunes des autres localités du Sénégal doivent en partie rallier Dakar article numéro 3 jeunes yi yëpp ngeen rallier Dakar cooki fin Dakar lay ame ku toog sa kër bul jooy ëllëg nga ne waaw wala li xew déedéet l'histoire retiendra dama ne article numéro trois tous les jeunes du Sénégal aller vers Dakar lors de son voyage de retour article numéro quatre Ousmane Sonko va voyager de route vers Dakar le président Sonko va quasiment traverser le pays Bignona Bounkiling Sédhiou Kolda bu ma nee Kolda damay taxaw foofu Vélingara Vélingara ma jeunesse de Vélingara le président Ousmane Sonko va passer par Vélingara je vous demande de faire la mobilisation exceptionnelle et après rallier Dakar Le qui fait le combat final, c'est Dakar. Sidde Amen Belingara. Meɗen toro on, meɗen ñaago on, Ousmane Sonko sino hoota Dakar ko Vélingara rewata inchallahu rabbi mbaɗe feere onon fof njalton mbaɗon mobilisation exceptionnel si on ngayni onon fof njahee Dakar nootoɗon président Ousmane Sonko Mbadingol Bignona Bunkiling Sédhiou Kolda alingam wakkili ndin président ousmane sonko ɓe tambila je alɓeye farañon kan alɓeye kafuñon kan nga bendu bendu o men ya lonko a nenemanke sénégal la histoire o kono ni nga mbandiya bendula alɓe seta dakar alɓe yeta nga président ousmane sonko dandan dakar kele laɓa o woɓe tarla dakar le inchallahu rabbi voilà tambacounda de la même manière aliya moyle almu mandinkolle te anin bambarawol mbaɗewal an ka feere ke nin président ousmane sonko nana tamba an kala ben koñuma nan tlara an bɛ ka sira minɛ ka waa dakar combat final bɛ damina dakar le inshallahu rabbi fatick kaolack mbuur etc nañu fexe ñu gunge président ousmane sonko dakar combat final cooki final dakar lay amee il faut ñu respecter ñu nous disons non à Macky et nous disons qu'il est temps de nous respecter sénégalais yi nañu bàyyi caaxaan yi waxoon nañ leen ne dossier aji saar bi ce n'est rien qu'un film te du film sax bu baax ndax acteur bi actrice bi kon la ndax Ousmane Sonko moom am na lu mu wax lu rëy tey loo xam ne daanaka moom xam naa dangi nii dinañ ko ci mere lool dangi dinañ la mere lool la président Ousmane Sonko parce que nee na Adji Sarr nee na non tuddul Adji Sarr dafa ne moom bu fekkee dina séq au moins nañ ko respecté waaye dangin bu AVC dangin bu AVC président Ousmane Sonko nee na moom lan la koy doyee gars yi respecté leen président Ousmane Sonko dangin bu AVC xaaral ma woon leen dangin bu AVC ni muy mel ah dangin bu AVC dangin bu AVC nag sawaay président Ousmane Sonko lu mu koy doyee nag yéen it xool leen lan leen ma ci dangin bu AVC ni lay mel ku bëgg a xam dangin bu AVC rek xoolal bi dangin bu AVC président Ousmane Sonko nee na lan lay doyee dangin bu AVC mu ne au moins nañ ko jox cër nañu jox waa ji cër ah bu fekkoon sa waay dañu xool ci ñi gën a taaru ñu ne waaw président Ousmane ko lii lële bu boobaa sax au moins duñ ko gëm mais ah ñu ne ah mooy loolu mais nga xool dangin bu AVC vraiment nga jël ko accuser ko accuser ko yu mel nii ñoom dañoo bëgg a xam nga ñoom Adji sar ñu jiiñ la rek ne tëddee nga ko loolu déjà xaste la vraiment xas nañ la quoi ku xool aji saar mii ñu ne la yow seq nga ak moom xas nañ la ba nga ràpp dañ la xas donc loolu moo naqari le pré Ousmane Sonko li ko naqari dafa bari de dafa bari xam nga malgré wax ji moom wax ji gaa moom Ousmane Sonko dafa blende ndax dégg na lu ne dégg na lu ne dégg na lu ne lu ne lu ne dégg na ko ci àddina et pourtant bi muy expliqué wu c'était très clair nee na leen jour bi mu génnee këram yor garabam yor adresse wër ba yegg kër Ndeye Khady Ndiaye daf ko laaj ndax fii mooy béréb sàngam Ndeye Khady ne ko déedéet Ousmane Sonko ak julliteem ak mbaaxam ak am kersaam mu rusane Ndeye Khady sa salon bi de mooy loolu mu dem feneen deful loolu de parce que xamu ko dafa taxaw mu ne ndey xadi sa salon bi est-ce que da fii maase mu ne ko waaw mu ne ko est que am nga kayit ndey xadi ne ko waaw mu ne ko ma xool mu xool mu gis ne que ndey xadi elle est licenciée amin elle a la licence am na kayit license li ñuy wax ci ci anglais bi mu amee kayit ci la son ko tàmbalee maase foofu te nee na leen bisu tabaski woon xam nga Adji Sarr lu mu fàttee wax ci procès bi nee na Ousmane Sonko 31 décembre 2020 31 décembre 2020 nee na ñëwoon na ci salon ba di maasew xam nga ban heure la wax heure bi mu wax booba Ousmane Sonko mi ngi Sen TV ndeysaan di def euh, euh, kii Sen TV muy def euh, kii maanaam kii waay ki ñu invité ko Sen TV Sen TV génn na def na démenti bi ah Ousmane sonk Adji Sarr heure bi mu nee Ousmane Sonko ñëw na 31 décembre moom ak avocat am bu mën a yuut mën a duul boobu adduna yépp fenloo nañ ko ndax Sen TV booba Ousmane Sonko ngi Sen TV dañ ko invité muy def émission xam nga ne bon sénégalais yi ñun buñ leen nee il faut nous respecter jar na ngeen jox ñu cër ndax la président Ousmane Sonko ku ko xam xam ne lenn rek lañ ko nawee te wax dëgg la mi ngi ni fii la Ousmane Sonko. ñu ne euh, Sonko moment bi ñu koy wax noonu euh, Sonko mu ngi woon exactement euh, ak à la bon à la Sen TV loolu laa bëggoon wax exactement alors loolu nekk loo xamante ne dafay wone les incohérences yi Mansour doon wax sànq léegi. xam nga déjà te confirme que le 31 décembre boobu man hmm. waxtaan ak Ousmane Sonko. mu ngi remplacé bi ma euh, euh, de l'État. Ousmane le nu mu def à la nation le 31 décembre. démb mu ngi may tooñ naan ma mais Birame tu dois être appelé comme témoin parce que le 31 yaa ko dalal sa plateau. ma ne ko dégg du doon témoin mënu leen ma woo parce que xam nga lan laa def man toog accueillir ko mu ñëw ñu installé ko mu toog ca plateau bu ñu toog ñu seex ak moom waxtaan. heure ba ñu seqal moom waxtaan c'était en direct ñëpp a ngi koy suivre ñëpp doon suivre fan la jaar avant mu ñëw sama yoon nekku ci fekkewuma ko waaye li wóor may nit koy jëw ci plateau war a seq ak ay journaliste waxtaan xanaa di nga préparer sa plateau xanaa doo tal dem di sud bëteeg euh, nangam bëteeg sal dama jàpp voilà defe naa boobu moom leer na bii beneen kàcc la bii ay kàcc la xam ngeen ñoom il sont dans dans ñoom seen logique mooy pour ñoom nañu continuer di lëndëmal xel yi rek nañuy fen rek di sos voilà doomu sénégalais yi tant que ñu ngi ñuy dina ñu gëm waaye li ngeen xamul <laughs> sénégalais tey bii sénégalais tey bii dafa wuteeg sénégalais démb bi de il faut ngeen comprendre aussi ne que jamono dafay évoluer il faut ngeen comprendre ne jamono dafay évoluer jamono jamono dafay évoluer de Sénégal ay caaxaan dafa jeex ku bëgg a xaru cëppeeloo ci gën a gaaw journaliste sénégalais yi dese tuuti dignité vous avez le respect de sénégalais waaye ces mercenaires qui font des articles commandés comme l'Obs Seneweb ak ñeneen ak ñeneen bari ngeen dee leen def ay article commandé rek ndeysaan tey dama déglu benn audio boo xam ne benn nit moo doon participer ci benn émission dama rus sax parce que nit ki déglu leen ko c'est un membre de l'APR am na turu jàmbur nag mënuma ko joxe déglu man Ousmane Sonko dama koy baalu àq. Mhm. benn. Mhm. ma koy baalu àq ba ci kanamu yàlla. Mhm. ndax man mësuma ànd ak Ousmane Sonko. ko fu ma mëntan taxaw fépp fu ma taxaw fu nekk bu ñu waxee ma ne Ousmane Sonko liñ koy jël yëpp moo ko def. démb nag kenn nettaliwu ma. dafa ma jaral ma jël sama journée. dem ba tribunal. présenté wu ma dara ma toog ma déglu lépp commencement ba fin. parce que dama ci doon wérante man APR la man Macky Sall laa ba jeex tàkk. dem tribunal toog nit di wax may déglu di déglu. parce que man mosuma teg sama tànk tribunal di seetaan ay projet ay yooyu mosul am. te ma première fois. déglu man dama yéemu ci yàlla. man Ousmane Sonko lenn rek laa bëgg lii laa war a naa ko ñaan si yàlla Ousmane Sonko na ma baal ak bu fekkee bu ñu dégg sama tànn na ma baal ak. Mhm. maa ngi koy jël maa ngi koy ak na si kanam yàlla. Mhm. ñaareel ba. Mhm. man ba ma xëyee tey ba déglu revue de presse. déglu naa Zik FM déglu naa RFM yéen bal ma si mu mais man revue de presse ba ma ko dégloo ak man démb lu li nekk tribunal mais c'est diamétralement opposé. Mm-hmm. man dama yéemu a yàlla. di mm-hmm. wax i yi nag. revue de presse yi ñaari revue de presse yi ma déglu déglu ma yeneen mais ñaari revue de presse yi ma déglu. Ah, man de déglu naa ko RFM. waxuñu si waxuñu si lu am tribunal. Mm-hmm. démb la am tribunal. ndax man dama dégg man Adji Sarr laa dégg ab lu ji bu ñu wax. Mm-hmm. mais ñi doon défendre Ousmane Sonko mais Ndeye Khady Ndiaye mu wax yëpp wax yëpp ak ñi nga xamante ne ñoo taxaw nekk terme waaye ñu wax mm-hmm. man dégguma ci dara. te man démb bu may génn man gàcce gàcce laa génnee tribunal démb gàcce. Mm-hmm. mu ne gàcce ñëw ba ma waa yow nii sama bët bu ñu ma na bët ndax gàcce. mais nag li nit ñi li nit ñi man maa ngi doog a man. wax dëgg neex yàlla def tàmb kenn du ko jeex. Mhm. te wax yi ñaaw na ñaaw boo xamante ne mhm. ndax ku fa togg ku ci nekk li koy xool bu doonoon sa bàyyi tey. d' accord sëñ bi man xam nga xam na lan laa bëgg nga nga ñëw ci. waaw gannaaw yow yaa ngi yaa ngi nekkoon euh, tribunal. waaw soo ma doon defal résumé wala bref ci yow yow yow li nga fekkee ak li nga gis ak yow nan nga ko gisee yow ak li ci xewoon ci biir salle bi. non man li may gis foofu yëpp. Mhm. ay waxu kakaw kakaw ay wax yu amul bopp amul genn. Mhm. te te te man man Adji Sarr li mu wax yëpp. mais ñi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk témoin ñoom bu ñu ñëwee dañoo démentir loolu yëpp teg ko na le. man mhm. loolu ma jaaxal. ñooñu dañoo jël lépp lépp ba mu jeex te ñooñu sax li ñu ne wax wax kàddu yu ñuy teg wax yu ñuy teg. ak li Adji Sarr wax dafa wute. dafa wut ñoom bu ñu ñëwee dañuy dañuy li ñuy wax raay day jub. ñu teg affaire yi kàddu yi di jub. man damay damay toog bu yàgg ma ne nii nii nii lan la ndax man affaire yi ay trois mois bi man kii la ma fekk may doon ci yoon bi di déglu di seetaan di seetaan ci net ci ci net bi. mais après man man affaire yi may dama dama gis man moom man dama yéem surtout man ba ma xëyee tey gis déglu revue de presse. ñu ay wax yoo xamante ne lii. ah président defe naa taskatu xibaar yi kii di Ousmane Tounkara de. kii beneen citoyen sénégalais bu baax bu ànd ak yéen la bu bokk APR. nee na tey ba mu yeewoo mu déglu seen ay revue de presse dafa yéemu ci àddina ndax dafa defe ne yéen Iran ngeen nekkoon wala Irak waaye nekku leen ci justice palais de la justice bu dakaar démb. doomu aadama man mënumaa comprendre ni ngay taxawee janook àdduna yépp ñu lay déglu nga xam ne ay million de personnes ñoo lay déglu nga fen cent gêne tu mens sans gêne et tu sais que les personnes qui t'écoutent savent que tu mens sans gêne nga fen loolu moo xew tey Sénégal waaye bu ñu fàtte de kooku lan kan moo ko inventé Sénégal c'est Youssou Ndour doomu sénégalais yi nit da ngay xool jaar-jaar am na loo xam ne rus naa koo wax sax ndeysaan tey ci Youssou Ndour ndax encore une fois li ma leen di wax dama leen ne am na ay doomu yusu nduur yoo xam ne vraiment sekk naa ak ñoom jàmm donc am na loo xam ne dinaa ko rus a wax ndax xam naa ne sama kàddu fa sori dina yegg foo xam ne ñëpp dinañ ko dégg ah mais Youssou Ndour c'est pas une personne digne du nit ku am dignité kooku bu créer télé boo xam ne ay misinformation la ñuy indi Sénégal loolu warul doon mbetteel ci kaw ci loxo sénégalais ci kanamu sénégalais yi warul doon mbetteel y a pas de surprise dans ce qui se passe au Sénégal amul surprise les sénégalais magak ndaw góor ak jigéen il faut que nu prenions nos destin notre destin en main te ñu comprendre ñii ñu ko sekkal amuñu dignité c'est pas des personnes dignes te nit boo ko sekkee ak ay doomu aadama yu amul dignité parfois il faut enlever les gants et faire face moo tax rek toujours buñ leen di woo ci gatsa gatsa bi parce que boo sekkul ak ku gore boo deful gat sa gat sa day jël sa bakkan bu teyee day dagg benn nopp bi yóbbu nga ne xaaral ma bàyyi koog yàlla bu ëllëgee bu ñëwee mu daggaat beneen nopp bi yóbbu nga ne xaaral ma bàyyi koog yàlla bu ginnaaw ëllëgee mu ñëw foqati sa bakkan bi yóbbu nga ne xaaral ma bàyyi koog yàlla balaa ngaa toog mu rey la nag benn yoon nga jeex balaa ngaa toog rek mu rey la nga mu jeex xam nga mes frères et sœurs sénégalais biñ leen di ne de la révolution a sonné du tey biñ leen gatsa gatsa du tey biñ leen di résistance du tey waaye il faut ngeen xam ne tey lépp dafa jot léegi euh, le docteur Alfousseyni gay mu ne fait à Dakar le 24 mai 2023 mu ne mise au point mise au point la wax gars yi lii nag mënuma koo liir lépp ndax bind yi day ndaw mu ne suite aux propos relayés dans la presse on m'attribue les propos d'audience selon lesquels j'ai confirmé la présence de supermatozoïdes dans les prélèvements de Adji Sarr lors de son premier examen gynécologique réalisé le 2 février 2021. Je tiens à apporter les précisions D'abord, une supermatozoïde n'est pas visible à l'œil nu, d'abord. Donc, un examen physique ne peut pas, en aucune façon, en établir la présence et encore moins à conclure à leur état de mort vivant ngeen déglu lool mu ne démb ay kàddoom dañ ko jël ne moom moo wax lii waaye mu leeral ci nopp sénégalais yi lañ koy wax d'abord ne moom la jël mu ne moom loolu nit mënu ko sax gis ak bëtam ba koy jël muy supermatozoïde ok lors de cet examen plus préliminaire du 2 février je n'ai décelé nii liquide mu ne jëlewu fa benn ndox séminal maanaam muy manniw mu ne jëlewu fa benn manniw nii sperme mu ne jëlewu fa dara les prélèvements effectués ce jour-là sont uniquement des sécrétions vaginales sécrétions vaginales mooy nga jël dara junj ko ci mooy loolu junj ko ci awra jigéen gi pour am loo fa jële mu ne j'ai également bien mentionné l'absence mu ne te leeral na ne amul benn fànn l'absence vulgaire maanaam ne dara dugg na ci awra aji wala dara dugg ci mu ne leeral na ne dara duggul ci awra aji bantu bale jaaru fa maanaam awra bi amul dara lu dugg ci biir amul dara lu fa génn docteur bi mooy indi précision am après lettre bi dinañ leen ko postel leeral bi dinañ leen ko postel ngeen am ko mu ngi fépp ci réseau bi mu ne cette constatation ne me permet pas de conduire à une activité sexuelle mu ne donc loolu mu nga xam ne moom la gis ci bëtam manul mu ne dafa am kii dafa am ku sekk moom ndax kenn sekkul ak moom aussi elle n'a présenté aucun stigmate de traumatisme mu ne te bi mu fay ñëw comme ni ngeen ko xamee rek xel mu dal la fa indi rek ak kontaanteem comme toujours ni mu koy defee physiquement ou psychologique s'obstine-t-il d'être signalé mu ne moom comme dafa ñëw rek di ko ràññee ci jigéen boo xam ne nee nañu dañ ko siif xool na aji waaye gisul dara lu fa yëngatu gisul aji bu tiit gisul aji bu yeres gisul aji bu rus gisul aji bu sëgg gisul aji buy jooy gisul aji buy lox moom daal aji bu ñëw la ak kontaanteem ak teeyam ñëw toog docteur bi xool gisul kii séq kenn junjul kenn dugalul kenn génnewul wax nañ leen ko téeméeri junni yoon kenn deful aji sar dara kenn yéegul kenn wàccul aji sar awraam bi dañu gis ne kenn yeggu ci encore une fois waxuma njànkate de amul njànkate awra bi laa wax kenn duggul ci biir léegi mu ne je rappelle que les prélèvements du 2 février effectués sur la dame aji Sarr ont été réalisés hors réquisition maanaam nee na bi mu koy def booba kenn indilu ko li tudd réquisition d'officiel d'officier mu ne maanaam booy jigéen bu ñu siif la plupart boo koy xool dañu lay indi lu tudd réquisition dégg nga officier de police judiciaire ou de procureur et sans et en présence de monsieur Ahmed Sidi mbay mu ne bi muy xool keroog awra Adji Sarr Ahmed Sidi Mbaye a ngi taxaw donc indi lu ñu ko benn këyit bu wóor ne ko defal lii defal la le Ahmed Sidi Mbaye kafane a fa voilà par ailleurs les les prélèvements ont été transportés au laboratoire mu ne prélèvement yooyu bi mu ko defee yóbbu nañ ko ci laboratoire par un agent de santé koo xam ne fajkat la ñu yóbbu ko ci laboratoire sans aucun scellé ou autre dispositif de protection mu ne yóbbu na ko fa amul siile tëjuñu ko defuñu ko dara dañ ko jël noonu rek mu débbal ko laboratoire bi donc moom déjà li mu wax noonu leeralal na leen ne mu ne bi mu jëlee junjee loolu ci Adji Sarr daf ko dugal rek ci dara jox ko directement laboratoire bi noonu mu ne par conséquent je ne suis pas en mesure mu ne moom nekkul ci benn situation pour garantir pour ne ah man naa garantir ne leur intégrité pour ne li dara du ci rax parce que daf ko jël rek jox ko laboratoire bi xam nga tey moom mu nekkee docteur bu jub mu xool gisu fi dara mu jël ko jox ko laboratoire mu ne ko yow it xoolal vraiment amul benn réquisition kenn selewu ko kenn tëju ko maanaam mi ngi mel ni rek ñu ne la nga jël ndab nga def ci lekk nga yóbbul ko aali waaye ndab li kenn ubbu ko xamuloo picc mu ci puubee xam nga doo xam wala leneen xew ci doo xam da nga ko teg nii rek sa bopp di dem te kenn ubbu ko donc loolu la def mu ne et leur non altération par l'injection possible d'une substance étrangère mu ne moom bi mu leen koy jox xamul luñ ci mën a def waaye xam nga mën nañ laa jox soosu suppu kànja yaw nga dolli ci maafe wala nga dolli ci boroxe wala nga dolli ci lu ci bokkul mu ne en tout cas de cause les seuls prélèvements qui peuvent engager ma responsabilité mu ne li nga xam ne kenn mën na ko koo toppee te muy lu sur le plan juridique ci acte bu leer sont ceux muy ya nga xam ne ceux effectués yi nga xam ne agence judiciaire les agents réquisition de la gendarmerie du 3 février mu ne ba ñu ñëwee le 3 février ñu jox ko réquisition prélèvement yooyu mu def keroog maanaam euh, mooy junj junj bi pas prélèvement mais junj bi mu def keroog mu ne yooyu rek lañ ko mën a toppee muy yi nga xam ne moom la def le 3 février ndax le 2 dañu ñëw rek yàkkamti loo ko xale bi dañ ko siif xoolal ñu ko xoolal ñu ko jëlal junjal yóbbul laboratoire moom loolu la def dafa junj yóbbu laboratoire waaye amul dara lu ko ci mën a garanti waaye le 3 février bi mu def nee na boobu moo wóor boobu la garanti ndax boobu agent gendarmerie le 3 février 2021 et qui a assuré koo xam ne assuré nañu son analyse par la laboratoire suivante le procédure légale et réglementaire je rajoute que l'adjonction de la phrase prélèvement en vue de test mu ne mu encore leeralaat li nga xam ne moom mooy li ñu yokk muy bind bi ne prélèvement en vue de test ADN mu ne am na loo xam ne dañ ko ci yokk ci rappor am muy prélèvement en vue de test ADN dans le certificat médical établi le 3 février est une demande nit moo ko ko wax une demande spécifique nit moo ko ko wax spécialement de la réquisition réquisition bi le 3 février il n'émane pa de mon initiative mu ne moom jëlul décision boobu def ko loolu nit moo ne ñu def ko ci waaye moom jëlul décision def ko mu ne en substance mu ne donc li nga xam ne moom mooy lii tënk waxam ni voilà le sens de mes déclarations lii la waxante ci këru attekaay ba lors de l'audition tenue hier li nga xam ne moom la ko attekat bi laaj muy démb le 23 février 2023 devant la chambre criminelle ci attekaayu criminel bi foofu du tribunal hors classe foofu du tribunal hors classe de Dakar je demande mu ne mi ngi laaj média yi au média dana pas mu ne muy laaj attekat taskatu xibaar yi mu ne leen bu ñu dana pas déformer mes propos bu ñu soppi ay waxam ou d'extrapoler wala jaxase sur leur signification wala dindi li nga xam ne moom kàddoom yi loolu la teg mu ne mi ngi ñaan taskatu xibaar yi bu ñu jël ay kàddoom féetale ko fu mu newul ba pare kàddu yi aussi li ñu tekki ñu dindi tekki kàddu bi ñu indi fa yeneen affaire yoo xam ne bokku ci moom Alfousseyni Gaye nee na loolu lay ñaan taskatu xibaaru senegal voilà mu ne je me mu ne mi ngi garder li nga xam ne la droit li nga xam ne moom mooy sañ-sañu toutes les voies de droit pour garantir mu ne lépp luy yoon pour nga xam ne moom day garantir l'intégrité li nga xam ne mooy mbooleem demee déclaration ci li mu wax maanaam ku ko ku soppi ay waxam xamal ne mën na laa topp ci yoon xamal ne mën na laa jàppalu du léegi nag ndax léegi moom seen waajee fa nekk euh, jimboori moom du ja du leen jàpp ndax moom moo leen yónni waaye xam leen ne yàgg-yàgg dina daanu ndax Firawna moo fi ëppoon doole gars yi te Firawna daanu na jimboori mu amul doole mi sawaay jimboori boo ko laaleeg benn baaraam sax mu mu mu faatu amul benn doomu adama buy génn xeexal ko bu dul quelque quelque force de l'ordre acheté ñoom lay yóbbu fu muy dem pour ñu koy defal ay ñaawteefam xam leen ne daanu jimboori yàggatul donc yéen taskatu xibaar yi def jikkoo euh, sambabo yi xam leen ne nee na pour ngeen xam ne man na leen topp ëllëg ak sibir mu ne à fin mu ne ci mujjantal nil naan ni ñoor mu ne kenn bu mu lu li mu wax nii bàyyi leen ci xel mu ne mi ngi leen di dànkaafu dafa am yar teggin saagaw leen xasu leen mu ne ngeen bàyyi xel ne kàddoom yi ngeen di jël di ko soppi bis dina ñëw dina leen ko toppee ci attekaay bu baax te dinañ leen atte te dinañ leen Euh, attekaay bi dina leen teg ay daan bu fekkee li ngeen wax du dëgg donc bàyyi leen ko xel yéen ñiy jël ay propos Alfousseyni Gaye di daw ak moom di sos ak a fen dégg naa démb dafa am ay journalistes yoo xam ne moom seen kaw lan la ñu tëdd de di bind rek ah Ousmane Sonko nee na lii waaw Adji Sarr nee na lii ah Ousmane Sonko nee na ah Alfousseyni Gaye nee na seen kaw lal xamuñu sax li xew ci justice c'est des articles commandés ñu tëdd seen kaw lal a ah, Adji Sarr nee na ah Ousmane Sonko nee na ah Mamour Diallo ah, dangam te fekk dara amu ci donc xalaas gars yi euh, may ñaan bépp doomu Sénégal ak fu waay mën ne ak fu waay mën a ne nee nañu leen procès bii am démb ci tribunal grand grande instance de Dakar or or or or ah de Dakar nee nañu leen amul dara lu ko gën lu ñu ko gën a teg gàcce ci histoire senegal ndax Sénégal ba mu sosoo ba léegi amul dara loo xam ne moom moo gën a gàccalu lii donc doomu aadama yi nañuy bàyyi xel te xam ne àdduna àdduna ngi nii demal maa ngi ñëw àdduna mi ngi nii nee la demal maa ngi ñëw àdduna nee la demal maa ngi ñëw bu la jaralee nga jàpp doomu jàmbur ni yow nga koy sosal nga koy fenal nga yàq deram nga dem toog ci attekaay boo xam ne xam ngeen xel ne dëgg amu fa yéen ngeen nekk aussi ay attekat ci biir attekat yooyu mu am ñaari jigéen ñaari jigéen yoo xam ne yéen am ngeen ay doom yéen a ngi ci ay buumu sey sénégalais yi xam leen ngeen mën a xam ne ëllëg ak si seen doom yi dinañu màgg te ñi ngeen ko seqal nag yàlla def duñ leen bàyyeeg yàlla de ñun ci gatsa gatsa la ñuy dox de jigéen bu fi génn nga def bu subaa bu ñu jëlee sa dignité teg ko ci kaw table bi ah bul mer de parce que wax naa leen avertir naa awandaw awa ndaw avertir naa la ak beneen sœur bi nee naa leen ngeen génn ci lii bu subaa seen dignité buñ ko jëlee di ko fi installé di ngeen xaru bu yeboo ngeen génn ci lii caay-caay bi génn leen ci raxasu bés ba set ku leen bëgg a tëj na leen tëj ku leen bëgg a dàq na leen dàq waaye restez digne génn leen ci ñàkk fayda yi xam nañu leen xam nañu ñi ngeen xamantel xam nañu ñu ngeen di dugalanteel ci gouvernement bi on connaît tout retourner et reculer balaa muy ñaaw dellu leen ginnaaw le président Ousmane Sonko il a appelé à un rassemblement que les Sénégalais ñun ñëpp ñu ànd dem Dakar cooki fin bi gars Dakar lay ame de cooki fin Dakar lay ame donc sénégalais amul baaluñu kenn nag muy jigéen di ndaw di góor na ñëpp daje Dakar àdduna dafa metti ku bëgg a dund ci àdduna bi il faut nga am nga nga am lu metti loo xam ne da nga koy traversé da ngay béy sa waar soyons prêts et restons debout et mobilisés et ñu nous nu def suñu part faisons notre part nañu def suñu part de nañu def suñu part faisons notre part nañu def suñu part de parce que ku yaakaar ne yow man ngaa toog sa biir kër yàlla lijjanti la lépp mu sotti yaa ngi ci njuumte bu rëy yaa ngi ci njuumte bu rëy a yaa ngi ci njuumte bu rëy gars yi nañu def li ñu war doomu góor day def li ko war te ñun ñëpp ay doomu góor lañu ci famille yu baax lañu juddoo ma tegal leen vidéo bii ngeen déglu ko Baye Assane ñëw nañ ñi ñu laaj ñëpp tontu nañ euh, nu mu tuddati sax capitaine Touré nag moo sa des ak jëkkëri Ndeye Khady capitaine nag biñ ko laajee mu tontu loo xamante ni daal seen ña fa toog jàpp nañu ni lii mooy dëgg siis bi daal di jàpp si leel yi sëgg daal di jàpp si bopp bi sëgg boog ah bi mu sëggee am ñu tàcc sa ginnaaw mu ne ñu tàcc ñëpp nañ leen génn ndax kenn war a tàcc foofu waaw ndax capitaine Touré nekkul ci dëgg ndax li mu fi waxagun jurut ah non man moom du ma tàcc voilà léegi nag ah? mu ni raayee daal nañ génn ñu ni raayee génn leen man maa jiitu dafay ñoom ñibbi ma demee noppal bu mais résultat yi daal la ñuy xaar non dafa am ñu tàccu. Hmm? non man du ma tàccu. waaye buñ tàccu dañuy taxaw rek. non capitaine Touré moo fa wax. si ñoom liñ jàpp ñu tàccu. dëgg goo xamante ni yaakaaruñu ne woon dëgg googu dina génn si tribunal dëgg dëgg rëy la mais dëgg gi français la. Ah, <laughs> waaw defe naa loolu gars yi yéen a ko déggandoo ñoo ko déggandoo. baal leen ma une minute rek s'il vous may leen ma benn minute. gars yi je pense que li nga xam ne important na ci waxtaan bi yëpp daal dinañ ko amal incha allah te dañuy ñaan yàlla rek mu aar ñu suturaal ñu musal ñu ci bépp seytaane ak bala musal ñu ci pexem noon musal ñu ci pexe naafeq ndax yàlla moom mooy kii sàkk yàlla moom mooy kii jël bakkan te moom yàlla moom mooy aar doomu aadama moo tax toujours ngeen di dégg ku sell ki buy wax mu ne leen ragal yëpp yàlla ndax yàlla ba muy sàkk doomu aadama lépp lu la war a dal ci sa dund bind na ko ba pare buñ la waree duma yàlla bind na ko boo waree dee yàlla bind na ko boo waree dund yàlla bind na ko boo waree daanu yàlla bind na ko boo waree jóg taxaw yàlla bind na ko boo waree yegg ci nguur yàlla bind na ko boo warul yegg ci nguur yàlla bind na ko sa nguur bu jeexee yàlla bind na ko lépp lu yàlla décidel doomu aadama bind na ko ba pare donc dañuy ñaan doomu sénégalais yi ñu jël suñu yaakaar jox ko yàlla euh, ma baaxee leen lii nag toujours dañ ñu ko daan wax boroom xam-xam yi dañ lay ne saa boo yeewoo suba teel ngay génn sa kër nga ñaan ci ñaan bi gën a yomb nag bu fekkee man nga ko bismillahi rahmaani rahim tawakkaltu ila allah wala hawla wala quwwata illa billah ñu ne keroog boo génnee sa kër ba ñu bis sa kër dara la dal donc nañu bàyyi loolu xel may sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu continuer ñoo aar continuer ñoo aaral suñu senegal continuer ñoo aaral ñi nga xam ne ñoo jub sàcc yeeg saay saay yeeg yàqkat yeeg Euh, tooñkat yi yàlla weer leen ni mu gënee gaaw incha allahu rabbi ak ku mu mën doon xam nga li ma wax leer na nee naa leen sàcc ak fen yi ak tooñkat yi yàlla weer leen ci ni mu gënee gaaw waa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen baal ma xam naa nag du mat toujours ndax man ngaa joxe ay information waaye ci joxe information boobu mën naa des waaye nag yéene bi moom defe naa benn la mooy dañu fas yéene rek wax li nga xam ne mooy dëgg yëpp Ousmane Sonko nag ñaan na ñu yëkkati barikat yi këram ndeysaan ñaan nañu yëkkati barricade yëpp këram te ñu teg ko ci yoon rek incha allahu rabbi voilà ñaan na ñu teg barikat yi ñu teggi barikat yi yëpp këram voilà barricade yi yëpp nee ñu teggi ko këram wala nee na buñ ko teggee incha allahu rabbi mu daal di teg ko ci yoonu Dakar El Malick Ndiaye ñu déglu quelque. ah ba ñu tëj ba ñu ba nii non non non non. ñoom chargé woon Aliou Ndao yaa ngi fàttali nga xam nga. imam Aliou Ndao. xam nga yaa ngi ko bañ naan Sonko et ses liaisons avec Tullow Oil. à la veille d'une campagne. yaa ngi comprendre lu baax li ma lay wax boobu kam moo ko on alors que dara du ci dëgg liñ doon wax ci imam Ndao naan dafay jokkoog ay terroristes dañoo fekk ay armam ci kë dara du ci dëgg l'histoire des forces spéciales ñoom la commando spécial lost la ba ci yu mujj yi nit ñi chaque fois ku ñu jàpp moom mooy chargé di ko def sciemment xam leen ne lobs lu leen teg yéen lobs leen ko teg wax leen ak lobs mu réglé c'est ça la vérité. tey ah, mu xëy. alors ah. ça non dama la jox. non non non non non non docteur Seyni Gueye. dafa dafa non moom moo wax ne docteur Lobs moo bind ne docteur Abdou ah, Seyni Gueye daf ne. El Hadj ma ne lii di nga ko dégg neexul nag. daaw day booy nag waaye di nga ko dégg. l'observateur moo bind tey ne. man l'observateur moo bind tey nii. gis nga ñi bind. l'observateur li l'observateur bind laa wax. gis nga liy bind ñi bind dañu signé li ñu bind fu la. waay waay waay gars yi bàyyi leen ma waay. bàyyi leen mbir yi leer bàyyi leen ngeen déglu El Malick li mu wax déglu leen ko écoutez. ah ba ñu tëj ba ñu ba ñu ba ñu chargé woon. Aliou Ndao nii non non non non. ñoom chargé woon Aliou Ndao yaa waxuma xam nga. imam Aliou Ndao. xam nga yaa ngi ko bañ naan Sonko et ses liaisons avec Tullow Oil à la veille d'une campagne. yaa ngi comprendre bu baax li ma lay wax boobu kam ko defoon alors que dara du ci dëgg li ñu wax ci imam ndaw naan dafa jokkoog ay terroristes dañoo fekk ay armam ci ka dara du ci dëgg. l'histoire de forces spéciales ñoom la commando spécial lost la ba ci yu mujj yi nit yëpp chaque fois ku ñu jàpp moom mooy chargé di ko def siyama xam leen ne lops lu leen teg yéen lops leen ko teg wax leen ak lops mu réglé c'est ça la vérité. tey mu xëy. alors ah. ça no dama la. non non non non non non docteur Seyni Gueye. non moom moo wax ne docteur Lops moo bind ne docteur Abdou ah, Seyni daf ne. ma ne lii di nga ko dégg neexul nag. daaw day koy nag waaye di nga ko dégg. l'observateur moo bind tey ne. man l'observateur moo bind tey nii. nga ñuy bind. l' observateur li l' observateur bind laa wax. gis nga liy bind ñuy bind dañu signé li ñu bind fu lañ ko teg. wax ji mu léegi nag waaw léegi li ngay wax merci mënul dindi li ñu bind. waaw merci léegi xam nga dañoo bu suba li ñu bind ñoom bind ko mënuloo ko dindi. waaw xam nga ñoom dañoo bind nii. waaw Alfousseyni Gueye moo wax ni daa def prélèvement fekk ñu baal ma ci kàddu gi man ni yu ci ndaw si. la sa ko bind wala bind moo ngi nii de. bu la moon la ko ñu ñuy projeté léegi une bi am ngeen ko Alfousseyni Liggéey génne communiqué signé ko ne mësul wax lu ni mel. ah waxoon naa leen Pape Ngagne mercenaire la waxoon naa leen ko saan nee na day défendre waa Lobs waaye ñu tegaat lii lii neex na ci ay nopp. Ah, ba ñu tëj ba ñu ba ñu ba ñu chargé woon Aliou Ndao nii. non non non waxuma xam nga. imam Aliou yaa ngi fàttali ko bañ naan Sonko et ses liaisons avec Tullow Oil à la veille d'une campagne yaa ngi comprendre baax li ma lay wax boobu kam moo ko defoon alors que dara du ci dëgg li doon wax ci imam Ndao naan dafa jokkoo ak ay terroristes dañoo fekk ay armam ci kër dara du ci dëgg l'histoire de forces spéciales ñoom la commando spécial loft la ba ci yu mujj yi ñun yëpp chaque fois ku ñu jàpp moom mooy chargé di ko def siyama xam leen ne lops lu leen teg yéen lobsaleen ko teg wax leen ak lobs mu réglé c'est ça la vérité. tey mu xëy. alors ça non dama non non non non non non non docteur Abdoul Seyni Gaye dafa dégg rek. non moom moo ne docteur Lobs moo bind ne docteur Abdoul ah, Seyni Gaye daf ne. ma ne di nga ko dégg neexul nag. daaw day ah, booy nag waaye di nga ko moo bind tey ne. man l' observateur moo bind tey nii nga ñuy bind l' observateur li l' observateur bind laa wax gis nga liy bind ñuy bind dañu signé li ñu bind fu lañ ko teg sa wax ji waaw léegi nag waaw léegi li ngay wax merci mënul dindi li ñu bind waaw merci bind ko mën loo ko dindi waa xam nga ñoom dañoo bind nii waaw Alfousseyni liggéey moo wax ni daa def prélèvement fekk ñu baal ma ci kàddu gi man ni yu ci ndaw si ndax sa ko bind wala bindu moo ngi nii de bu la moon la wala ñu projeté léegi in bi am yan ko Alfousseyni Gaye génne communiqué signé ko ne mësul wax lu ni mel. voilà ah, ba léegi dégg nañu euh, Pape Ngagne dégg El Malick gis nañu ne l' observateur man dama am loo xam ne dama leen koy jox te joxoon naa leen ko génne woon nañ sax journaliste l' observateur Macky Sall daf ko def euh, euh, Youssou Ndour ak Macky Sall. Youssou Ndour dafa def l'observateur aux dispositions du gouvernement du Sénégal nee na leen lépp lu ñu bëgg a jàllale te mu doon xibaar bu gaaw nañ ko jàllale l'observateur Youssou nduur dafa jël l'observateur def ko à la disposition du ministère de l'intérieur ba ay employé l'observateur man nañ leen indil ay firnde ñu ngi liggéeyal Antoine Diome au ministère de l'intérieur donc l'observateur gouvernement Macky Sall moo ko moom maanaam Youssou Ndour a ko jël jox leen ko ci ay milliards yu bari nag ak ay terrain yu baree baree baree baree bari moom moo leen di jàllaleel seen yu salte pour di bi waa bitim réew di ko gis ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen li sénégalais yu bari xamul sax dañu yaakaar ne ndeysaan ñoom bu ñuy def loolu ñun ñoo tax ñu koy def sénégalais yi la ñuy informer déedéet ces informations n'ont pas ne sont pas pour le sénégalais information observateur du pour sénégalais de pour bitim réew la c'est pour l'extérieur c'est pour l'impérialisme c'est pour les impérialistes ñooñu lay jël pour ñu liir français beeg ñoomin seen voilà bu boobaa nag mooy loolu maa ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal te incha allahu rabbi ñu joxewaat dig daje suba waa salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu